gars yi bala ñoo commencé vidéo bi nag képp koo xamante ni abonné goo maa ngi lay invité nga gaaw ñëw abonné te aussi ngeen partagé vidéo yi ngeen like vidéo yi surtout dee leen like bu baax a baax a baax dañuy yokk doole asalaamaaleykum mbokki internet yi ñu saxoo liberté d'expression ñu leen nuyu baax di leen jaajëfal euh, tey nag gis ngeen mayo mu jox Macky Sall mooy vingt sept euh, méngoog article euh, vingt sept constitution bi mooy nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs. Liberté, nul liberté, ne plus de deux mandats consécutifs. Nul ne de deux mandats consécutifs. Nul ne peut de li nag euh, tolloon rek yàlla la goo xam ni dafa mel ni suñu borom am na lu ci nam ma euh, expliqué Macky Sall comme dañ ko ko jox comme cadeau waaye bàyyiwu ko xel kenn nattalewu ko dafa jékki-jékki rek tombé. war na cee tiré ay leçons yu baree bëri. parce que tombe eh, tombé lu am solo la ay message la yoo xam ne si suñu borom dina koy jaarale ci yenn mbir yi di ko envoyé yenn gars yi pour bëgg ñu bàyyi ci xel mais euh, Macky Sall war na cee bàyyi xel bu baax a baax a baax Macky bu baax a baax lu xorom la nag lu yéeme loo xam ni tombe gu gu am solo la gu yéeme 27 <laughs> article 27 nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs Macky Sall jox nañ la kàddu mayo 27 lu tombé article bi lay tere troisième mandat. ngelawaay nañ ci tiir ay leçons yu bëree bëree bëree bëree bëri sama gars yi mbokki internet yi loolu moo nekkoon vidéo bi na ngeen ko càmbaree ñëpp bàyyi ko xel yi ñëpp asalaamaaleykum liberté d'expression